waaw man euh, Momar Sow laa tudd donc assistant madame Diawara Fellou Couture donc particularité événement bi mooy que ne euh, dafay permettre ay talent yu bees yu mën a exprimer wu wane seen mën-mën ci métier stylisme mais aussi ci mannequinat donc euh, c'est une première donc comme comme ça ne se fait pas au Sénégal, parce que c'est un truc qui n'est pas lucratif. voilà tey euh, xew-xewu tey bi lan moo ko waraloon. xew-xewu tey bi conférence de presse la en prélude à un grand événement événement bi mooy euh, le défilé de mode l'exposition vente bu nga xam ne suñu suñu xarit suñu collaborateur monsieur Kane daf koy organiser fii le 29. au centre euh, culturel Blaise Senghor. ci wàllu culture gis nañ ñëw euh, sunu tailleur yi. Euh, am nañ wala boog sunu stylistes yi en général. Mhm. am nañu benn benn dayo bu yaatu ci wàllu ci wàllu àdduna bi. Mhm. côté mannequinat tam dayoo boobu am na ci. waaye dafa am lu ci xaw a gàkk tuuti ci wàllu mannequinat bi. Mhm. ndaxte am na li ñu leen daan tuumaal. Mhm. yéen naka ngeen di def ba tuuma yooyu mu dañ naka ngeen def tam ba euh, way juri ñamee jël seeni i doom. ñu mhm. la ñëw ci métier mi. voilà loolu loolu en fait sax mooy lu gën a extraordinaire ci lu ñuy def parce que c'est lu ñuy def actuellement c'est nouvelle forme de préparer le mannequins à un métier qui est donc métier bu nga xam ne métier bu noble la mannequinat c'est vrai que dañuy jot coût yu bari hmm, ci ci seen nekkin ci seen i jëfin yi nag c'est une nouvelle façon de faire le mannequinat moom la ñuy euh, moom la ñuy promouvoir donc dife bu ñu indi nii mooy topp leen wan leen ay jikko yu baax jàngal leen métier bi ci jàngin bu sell déjà loolu mooy premier pas bi deuxième pas bi tamit mooy accompagner leen ci métier bi xamal leen métier bi mooy lan ba pare en même temps monsieur Kane qui est notre collaborateur lui il gère euh, justement leur euh, leur avenir dans le mannequinat. ma dellusiwaat ci question bu njëkk bi mooy euh, lan nga war a def ba nga xam ne waajur yi dinañu nangu bàyyi seen i doom ñu koy def. waaw xam nga xam nga xam nga loo gis rek il faut mu am dialogue donc ñun jëluñu xale yi pour àkki moo xale yi. suñ leen jëlee dañ ciy boole seeni waajur di waxtaan ak ñoom dañuy exiger par exemple suñuy ñëw ñu am ay autorisation yu nga xam ne dañ koy préparer jox leen ko ñu jox ko seeni parents seen parents euh, permettre leen à ce que ñu ñëw ci yenn événement yi wala ñu ñëw ci ci yeneen yi. Ah, ay magum jëmm li ñu day autorisation parentale. waaw xam nga xam nga loolu yëpp ci leeral la bokk. tu su ñuy def loolu c'est parce que dañoo bëgg lépp leer entre les parents rétablir en quelque sorte la confiance entre le métier et celui qui l'exerce